ngeen jëf donte nee nañu ñu ca lambu ja di bàkku moo gën a wóor di ca dem di bàkku président Macky Sall moom ma ngay bàkku te yeggaguñu ca lambu ja ubbil la Sénégal coalition pour l'émergence taxaw Sénégal gi maître Ousmane Seye jiite ñoo ko seeti woon démb mu xamal leen fa moom Macky Sall ne leneen la waxati waaye wootee présidentielle 2019 yi moom gagné nañu ko ba noppi te ci premier tour ba nag lay doon téye nañu ndam li ci suñu loxo waaye ci kaw ñu gën a defaruwaat jekkal suñu toogaay maanaam indi tuuti organisation ak méthode ci yëf yi loolee bu ñu ko defee ñoo koy teree neex li neex libération opposition bi am na ci ñoo xam ne lu ñu def ba lu ñu wax du ma bett ndax ku sa gémmiñ di nàcc doo wax jàmm bari na ci tey ji ñu dem toogi ca lànguk noon ya dara lu ko lu dul xeeti baax baax yi ñu doon am ci réew mi la ñu amatul ñoo ñee seen intérêt bopp moo leen yitteel waaye du intérêt réew mi njiit réew mi di Macky Sall ne ba mu doonee njiitum réew ak léegi du tëdd mukk te deux heures matin wala trois heures du matin jotul ndax njariñu réew meek waa réew mi ñoo ko tere nelaw ñi mu tere nelaw jamono ji moom Macky Sall di opposition bi tënku ci kuréel gii di Front démocratique social de résistance nationale Les ko nee nañu demoon nañu démb seeti waa Union européenne jéebaane nañu fa Macky Sall ba seen xol sedd ba ñu génnee ci seen gisee baak tubaab bi Union européenne yi ca la ñu xamle ne cin li ci kaw taal bi mi ngi baax ak di wañax te yàlla rek xam kañ la kubéer gi di tëb li leer ba leer daal moo di kubéer gi bés bu tëbee du jur jàmm ci kenn L'Observateur nañu deru Macky Sall rafetul ca Union européenne opposition bu Sénégal bi ñoo fa dem yàq ko ba mu mel ne soow mu jinne jéggi nañu jéggi coow li te jégget ndànk dem ci enquête mi xëy ak ci la xewoon démb ca jam ñaajo lii di deer délégation entrepreneuriat rapide moom la ñu fa doon siiwal démb Macky Sall mi fi indi deer gi enquête ne kay nee nañu li muy séntu ci deer gi moo di fexe ca jaare ca ba wàññi sëmër yi ci réew mi ak ñàkkum liggéey gi gëtan lu ëpp ci ndaw réew mi rawatina jigéen ñi nee na sa programme la boo xam ne at mu nekk danañ ci dugal fanweeri milliards te bu ko ci kenn dugalal mbiri politique deer gi amul xaaj ak seen amul kii ci parti bii la bokk amul kële ca parti bële la bokk waa Sénégal gi yëpp ñoo ci bokk yam ñu yam ci xët ko fa borom deer fekk yi journal bi nañu financement bu njëkk bu délégation entrepreneuriat rapide njiit réew mi Macky Sall joxe na ko démb mu di mbir moom nee ñoo ngi ci xaar mu jur ñetti téeméeri junni xëy ci réew mi jam ñaajo ga mu ne woon démb moom président de la république ñoo ko fay xaar suba ci àllarba ji l'observateur nañu complexe multifonctionnel bii di Dakar Arena ba ñu fa doon tabax moo sotti ba mu war koo daloo suba la koy inauguré waaye gaa yi wattu kaaraange daraja ya mu di VIP ya bëgguñu faa gis benn directeur sénéral wala consort directeur sénéral bu SOGIP di Gallo Ba xëy na di waxtaan ak waa l'Observateur ci Dakar Arena bi nee na ngir bañ xat damu ci boole cekit bëgg mu gën dox moo waral yëf yi dañu koy jël dénk ko ay privé ngir ñu di ko doxal opital principal bu Ndakaaru ndax du mujj ci loxoy privé yi yëral xët mu njëkku direct info yéenekaay bi nee ñu hôpital principal laati kaaf la def gudd yu ñu toll hôpital ba gën feebar ñamuy faj liggéeykat yu xam dara bari wuñu ci ba xamul nu mu toll ñi nga xam ne ñooy fournisseur yi principal direction bu hôpital ba maanduwul ci ñi leen di tànne boole ceeki directeur hôpital ba du ko agrégé ci wàllu médecine te ña fa agrégé ma ngay seet nu mu leen fa jëlee ñu jël source a mi ñu wax ne société minière yi ci réew mi li ñu nekkee état bu Sénégal moo leen ca far ne bi ñu wootee code minière bi 2016 dañu ne bépp entreprise minière bu nekk ci réew mi la ngay am nan ca comp as lëf maanaam 0,5 pour cent ko jox kilifa yu gox ba nga sampe yéenekaay bi nañu ba ñu ko waxee ak léegi defuñu ci dara nguur gi xam na ko waxu leen dara lu dul leen seetaan seetaan a dàq ci ndaje bu ñu daanuwul ci sa kaw nañu dem ci record yéene kay seeti góol bu équipe nationale bu Sénégal bu football di Khadim Ndiaye li record yéene kay di laaj moo di ndax moom Khadim Ndiaye dina góolooti ci équipe bi li tax mu koy laaj moo di Khadim Ndiaye li mu góolu doyul ñu bari beneen bi ci topp moo di mi ngi jëm mag ñetteel bi di concurrence bi ko dar Omar Diallo mi fi newoon jamono góol bu équipe nationale bu Sénégal ne waa record yéene kay ak ëllëgëm moom Khadim Ndiaye mi ngi dépendre ci moom